Amadou Ba. Hmm. ñu ngi lu mandaat naan dafay ber euh, lan mooy le meilleur choix politique pour moom. bu fekkoon ne dafa perte à la régulière ñu dem élection Sénégal yi euh, rejeté Benno mu perte ça je crois que sa place day nekk APR. dans l'APR dans l'APR mais Amadou Ba a été défait par l'APR. te jàpp naa ne Macky Sall mi fexe ba Amadou Ba ñàkk élection yi mais du ko bàyyi muy am amat tekk dara ci pa ci APR. et d'ailleurs boo gisee yi muy yëngal di yónnee délégation ko bokk ci ay réunion à la limite c'est pour empêcher à ce que des pans entiers de l'APR dem fekk Amadou Ba donc foofu moom jàpp naa ne du jëmukaay danaa li nag gis nga ay sot may mun na may mun na pardon keroog bi Macky Sall démissionné ci PDS ci assem bureau assemblée nationale démissionné ci PDS démissionné ci maire Fatick. fukki nit topp ñu ko woon. ñu ngi woon fii ci euh, Fann résidence kër ga mu luy woon ña fa nekkoon bëri def conférence de presse ci benn salon. waaw waaye ñun ñu àndoon ak moom dañoo takk suñu ndigg nekkoon ko ni la Ablaye Sempé daañu la tuxaat réew mi gis nga keroog bañ demee sali di élaborer le plan de de la stratégie de conquête du pouvoir matuñu juróom. Macky sàll ak ñeneen damay ba a tudd tur di tooñ on n'était pas nombreux biir sali lañ ko élaborer commencé élaborer ba valider la stratégie de conquête di pouvoir génn di ci dox lu waaye am def ko ci ba 2012 ñu jox ko réew ànd ba la muy neex ko naqari ñun ñëpp ñu takk suñu digg fas yéene mu am bilan yàlla may na ko bilan jàpp naa ni condition yi mu demee di woon yi mu war a demee du yim war a demee. Amadou Ba noonu noonu la war a def. dem yoonam en tout cas bu yaakaar ne affaire lay dundee moom day day day naa boppam bon évidemment am nañu la politique assez secrète. mais Amadou Ba chef de l'opposition euh, il quitte l'APR est-ce que mënul doon prox ndool. non xam nga la question de la de chef de l'opposition en tout cas juridiquement c'est pas encore réglé constitution bi tudd na ko le le statut de l'opposition est de son chef mais loi bi ko war a def loi moo amagut. donc à l'heure actuelle bu génnoon itam bon on pourrait l'appeler chef mais je crois que c'est ay kii la. mais dans les faits c'est le chef de l'opposition il est arrivé deuxième. non non non non Idrissa était deuxième il n'était pas chef de l'opposition dans les faits c'était Ousmane Sonko le chef de l'opposition maintenant l'opposition de Ousmane Sonko moom c'est une catastrophe. non la majorité. oui oui donc jox. Euh, maintenant li ma jàpp mooy li ma jàpp mooy puisque loi amut. maintenant pour être chef de l'opposition Amadou Ba lan lan la man a nekk chef de l'opposition mooy mu génneel Sénégalais. lu gën lii ko xale yi dig wala li xale yi di def lii be Pastef di def xam nga être chef de l'opposition du ay statut moo la koy jox Ousmane Sonko était troisième pourtant il était devenu de fait chef de l'opposition mais parce que qu'il était présent di di xooxu dofam ba dof yëpp ànd ak moom d'accord mais Amadou Ba aussi jàpp naa ne su bëggee nekk chef de l'opposition ah il faut mu nekk nag un opposant d'abord mais cette opposition de Amadou Ba du la koy wutale opposition Pastef ça doit être une opposition de diagnostic maanaam xool jafe-jafe yi réew mi am te jàpp naa ne mën na koo xam parce que Amadou Ba yàgg na ci état bi mais aussi mu indi ay saafara parce que sànq yaa ngi koy wax le PSE son opé la l' opérationnalité du PSE le Sénégal le doit à Amadou Ba. et à son équipe. oui à son équipe. Moustapha Ba Khady Camara Pierre Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ak ñeneen ñu tëggu ko ma jàpp nag na mu defoon foofa war na ko mën def fii parce que nag. merci beaucoup.